سيدنا محمد والآل وصحبه mbokki internet dal leen jàmm fi nga xamante ne nii moom mooy ndindi ñu ñëw kër Baye Karim nag fekk fi Mame mbay wara war waxtaanee ak moom lu baree bari ci màggal gi waaye màggal gi 2020 bu ñu ko bu ci xel yi demee ba ñu ñëw di ci waxtaan xel yëpp dafay dem ci li nga xamante ne ni moom mooy yoonu géej gi xel yëpp dafay dem ci li nga xamante ne ni moom mooy tukki bi nga xam ne moo jur cantuk tey gi waaye tukki boobu bu ci xel yi demee mënta ñàkk bañ dem Gabon te ku dégg Gabon rek xam ne relation bu extraordinaire la bu historique ak ki nga xamante ne ni moom mooy jëmm ju tedd doot ji Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ci lu yàggul dara nag ñu gis ki nga xamante ne ni moom mooy Mamor mu defoon ay jéegu moom it mel ni ku doon toppandoo voyage ba waaye demoon rek ngir gëstu ji dem Gabon ba mu fa demee lan la fa yëg kàddu yi lañ bëgg a taataan ci moom gannaaw ñu ko bàyyee mu nuyoo mu wax ñu ban yëg-yëg la am ba mu demee Gabon nan ak lan la fa gis ak lan la nañu ban a baaxee ñun ñi nga xamante ne nii suñuy gët àggagu fa sëñ bi Mamor ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax ci màggal maa ngi leen di fay di leen siyaar ci màggal gi di jiital ci ziar bi seex Mouhamadou Mountakha di ziar mbooleem njabootam gépp buñ ñu nee njabootam gépp dañuy jël ziar bi teg ko ci loxol kii nga xam ni mooy rakkam di taalibeem euh, ndax muy sëriñu sëriñam muy sëñ Abdou Karim noo ngi koy ziar ziar sëñ Abou Baraka ziar njabootu sëñ Touba gépp bàyyiwunu kenn euh, di ziar baax téléspectateur yu Seneweb ak téléspectatrice am di rafetlu tam liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy def ci yoon wi di ñaan suñu borom dolli leen ci barke Sëñ Tuubaa yoonu Gabon bi comme ni ma ko waxee sànq ci introduction bi ba nga fa demee ban yëg-yëg nga am. waaw loolu moom xam naa sax lépp duñ ko mën a wax ndax am na looy dund loo xam ni doo ko mën a wax lépp waaye même moom sax moom sëriñ bi nga xam ne moo tukki woon sëñ Moussa Ka moo ne am na ci loo xam ne dees na ko misaal waaye am na ci loo xam ne làmmiñ du ko laal. dal ne am na ci mbir yoo xam ne du feeñ ci duniyaa ngir mbuuti yàlla yamul làmbook may ya dal ne soo ko gëmut nag yëral jasaw sakoor jawaab bi abdullahi loolu moo wóor gabon bi may dem mbég naa mel ni ndax man maa ni woon maa ngi koy ñaan bis bu may jëkk a yëg avion yàlla na doon yoonu gabon te ma toppi ay ji jéegoom ndax man mii di wax ak yow mën naa ni ci xaalisu gabon lañ ma ngénte ndax sam papa en 76 maçon yi demoon liggéey pare Omar Bongo nee na li ëpp ci lam fa jëlee ci montagne sainte gañ doon pendri sëriñ bi doon ko fa fexee la gasoon am pax foofu ca euh, euh, montagne sainte nekk ci capital bi ci biir gabon foofa lu ko jëlee kon man te daa daa ñibbisi rek am ma kon nun suñu lépp yaakaar naa suñu borom da koo tëkk da ko da koo lëkkaleeg Euh, Gabon jëwriñ këroo bi ma wàccee Libreville li sama xel jëkk dem mooy nafaxani naafixu fii limbel wéri bi ma bixi yaabitu ni ku la wali sëñ Tuubaa dane sunu borom wan na ma fii ci Libreville loo xam ni kenn mosu koo gis wàlliwu sax mosu ko mosu cee teg teg teg tànkam la ma fa sunu borom may ay may ndax damay faral di wax naan boo jàngee xasid ak ayasa mindalaahi inda jeewali iblisa is naa day toxo biyawali di nga dem ba déggaat bayit boobu bi mu ñëwee Conakry da ne baara ani laahu la daa Conakry min kulli jaalibil ilal manakiri wàcc aéroport Grand Bassam muy Côte d'Ivoire mu ne azaba andi laahu fi Grand Bassa xablul mubarisit wa inni xelbacha même bi muy pénétré Dakar da ngaa dégg mu ne euh, da ngaa dégg mu ne euh, bi mu yëkkee ne euh, bi ahlu badrin waree wàcc ndar da ngaa dégg mu nafaale xayre laaw xabli fi ndari mu tudd ndar bi ahli badrin au zodi kadari ñëw Dakar daal ni nafaali xayri laaw fi ndakaaru la azan li jaarahum makaaru noonu la ko toppee ba bi muy wàcc nag aéroport libre bi muy poor port ville mu daal di jëlaat xasida ga nag fi mu ne xasaayit googu mooy journaliste su Sëñ Tuubaa fi ne sëñ bi àndul woon ak yow àndul woon ak euh, euh, Abibou Mbaye bu RTS àndul woon ak ñooñu mais xasida gi yéen moo leen représenté yéen journaliste yi parce que xasida gi rek nga mën a jàng xam itinéraire yu sëriñ bi ndax bi mu wàccee Libreville la ne nafaali xayrilaawu fii Libreville bi maa bixi yàbbitu nii kulliwul yi daal di nag dugg euh, ba dem Maayomba mu ne saaxari xayrilaawu fii Maayomba noonu la ko toppee di ko topp di ko topp ba bi mu demee euh, làmbar nga xamante ne bi muy jeexal xasaayit gi ci tënk dem na ba naan naa jëy taxoo biyaa na siriya wali ka faytani iblisa inda jeewali waaye sëriñ bi bi jëkk mooy der bu ñuul moo war a sant sëñ Touba parce que tubaab bi bëggul woon ñun ñu am liberté bi ndax boo demee ci ginnaaw demal mën nga jël sa sa sa site bi nga dugg Gorée dañ naan la maison des esclaves mi ngi nii nii ñuy jëlee nag yi ak xar yi ak gileem yi di leen parke di jaay di waxaale ñun noonu la meloon ci biir tubaab yi ak naar yi du noonu dara mais li dagg ja bu mu jaam ñi dañ ko war a lijjanti parce que Lat Joor Ngoone Latiir ak les dameel di Kajoor bi ñu koy xeex dañ leen a mujj xeex ñu faatu sëriñ bi nag tubaab bi sosol ko ay sos prééducateur de guerre sainte trouble l'ordre public trouble à l'ordre public porte atteinte à l'économie du pays exil de la haine entre le sectes il doit être déporté à l'Afrique centrale avec une pension de 50 francs par mois procès verbal numéro 1 délibération numéro 16 daal di koy yóbbu Congo belge mu dégg sëñ Moussa mu daal di wàcc Congo ko ville di Marinao mu daal di dugg ci ville di Marinao mu jàll Congo belge Bamba mën a naaw Seex Bamba daal di tàbbi fii Safina gaal guñ naan Koroga bon sori na waaye boo duggee Mayumba foofoo graw suñ ko som suñ Muntaxa dañ fa ànd maa ngi koy ziar muy taawam daa toogam yaay réew yi cax bopp bi ma ne ko doon mu ne dañoo waroon a ñëw li logique ñu ñëw rek ñu wan ñu fii ab jal nañu fii la fii lañ ko denc loolu moo logique mais bu ñëwaatee ba wootee fi li toll nii bis bi toll nii kon dinañ xam ne yàlla far na sëñ Tuubaa keroog ba muy si nag la ko tubaab bi wax da ne ko qu'il devait se révéler comme le plus pacifique des prédicateurs de guerre sainte le plus grande facteur de l'expansion économique le plus sollicité de l'ordre public gère apport de la fraternité non seulement entre adeptes de même culte mais entre croyants de confessions différentes Bamba merci jërëjëfe sëñ Touba est-ce que borom Touba borom Touba amut morom <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf